na fa benn fan mais bàyyi nañ ko donc loolu aussi est-ce que duñ jàpp ne cette justice tant décriée commence à évoluer dans le bon sens. bon la justice n'a pas évolué sachant bu ñu xoolee le président Bougane dañ ko convoqué mais bu ñu demee ba ci biir kenn nanguwul ni man maa ko plainte waanaam si dara di ko këpp ko plainte nanguwul jël ay responsabilités am jël courage am à deux mains ni man maa convoqué le président Bougane man maa ko porté plainte. procureur autosaisirul mhm. commissaire moom moo ko convoqué. mais avant ngay évoluer foofu euh, ne nga ki ko plainte nangul jël courage à deux mains lu bëgg a wax foofu que y' a quelqu' un qui est derrière. y' a quelqu' un a activé la justice parce que dañu gis acharnement la xoxatal la dañu gis ne dañ ko bëgg a dañ ko bëgg noppiloo parce que gis nañu le président Bougane dafa am courage jël courage à deux mains li man damay opposé wu. Mhm. jàppale régime bi fi nekk parce gis naa ni ay cuune naa ni c' est des mains inexpertes réew yoo xam ne ñi ko jiite ñëpp xamuñu lu dul dagg juuti. xamuñu lu dul sectarisme xamuñu lu dul séparatisme xamuñu lu dul tas réew mi xa volet bu nekk ñu xaaj ko ñaar. bu ñu jëlee corporation journalisme xaaj nañ ko ñaar bu ñu jëlee volet religieux bi xaaj nañ ko ñaar bu opinion publique bi xaaj nañ ko ñaar. même ba ci administration bi dañ ko xaaj ñaar. mais qu'est-ce qui a déterminant ci sa gis-gis euh, pour conduire à sa euh, libération parce que dañ ko classé sans euh, c'est c'est la pression populaire c'est c'est quoi parce que on a vu que ne ñu bëri ñu ko doon condamné xëy na yéen bu dee yéen rek la du du du am trop dayo bi mu war a am mais on a vu société civile condamné ko on a vu même Y en a di dénoncer arrestation yi loolu yëpp jàpp nga ne xëy na war a gàddalu ginnaaw wala il mais gis nañ ne en tout état de cause boo xoolee euh, procès verbal bu Cheikh Yérim Seck dañ ko fuiteel mhm. mais est-ce que seetlu ngeen ni bu président Bougane bi kenn ñi ko fuiteel parce que dossier bi dafa vide boo xoolee ay reetaan daf lay jàpp mhm. parce que tey bu ñu nee dafa diffuser de fausses nouvelles le président Bougane n'a pas de fausses nouvelles c'est Ousmane Sonko qui a diffusé de fausses nouvelles. Mhm. moom dafa ñëw contester les fausses nouvelles diffusées par Ousmane Sonko. donc cette convocation n'aurait jamais dû avoir lieu. warul mais il n'a fait que répéter les mots utilisés par Ousmane Sonko. mais foofu tamit war ngeen ci taxaw tuuti euh, Moussa euh, kaddu Bougane aussi xaw na xaw na tàng trop parce que euh, on n'avait pas on n'était pas habitué à le voir ci ci lu mel noonu donc est-ce que tamit jar na ngeen di egg fenn fi. parce que tey bu ñu bu ñu waree tey convoqué nit ci injure publique je pense que Ousmane Sonko président parti Pastef la ñu war a convoqué parce que moom moo ni président bi ñu jiitee 2012 ba 2024 da doon fen da doon manipuler chiffres yi da doon mhm. fen yi. les mêmes propos moom la président Bougane utilisé en l'endroit du président de Pastef est ngeen wàcc ba ci ba ci ba loolu ñëpp la jik est-ce la war xam nga ki suñu réew di coordonner l'action gouvernementale bu demee ba employé moo yooyu je pense que nekk war na ko mën a utiliser relativement par rapport ak ni nga ko war a employé man j'ai j'ai parlé à universitaire hier mais nee ma euh, xëy na Ousmane Sonko par rapport tout ce qu'il vécu euh, par euh, jaar-jaaram mën nañ ko sax def maanaam euh, dafa nekk koo xam ne dafa am lu mu doon mhm. avant muy nekk un homme politique dafa nekk pëy na euh, benn euh, exemple ci jeunes yu bari donc est-ce que war na war na egg egg foofu li jikkale war na ko mën a mën a bañ a jikk en fait tout à fait damay damay concéder loolu ak la vision de ou bien la pensée de cette de ce cet cet universitaire mhm. parce que jàpp nañu ni par rapport ak jaar-jaaru président Bougane warul def comme ni Ousmane Sonko ko defee mhm. mais gis nañu ni ki nga xam ni moom mooy incarné njiitu gouvernement bi jàpp nañu war na am posture boo xam war na moo la amee. Mhm. parce que tey bu fekkee dañ la dénk réew nga ni man am naa solution par rapport ak seen i problématique bu ñu la dénkee réew mi dañ lay xaar kon nga matérialiser li nga xam moom nga moom lañ la dénk nga nga nga doon promettre Sénégalais mais jusqu'à présent sept mois après lan la ñuy def dem ci manipulation te Ousmane Sonko daf ñu habitué ci loolu a chaque fois que ñu war a dem ci élection dina génn wax loo xam ni ay révélation la. Mhm. dañuy jël tey exemple affaire Mamour Diallo 94 milliards yi mooy bi ñuy waaj dem ci élection présidentielle mhm. bi ñu demee ba ñu war a dem ci élection présidentielle lan la wax Amadou Ba da daan sàcc ma ne ko teg ko fii. Mhm. bu ñu demaatee ci élection législative bu 2022 la wax waa Aar Sénégal ba Abdourahmane Diouf. Mhm. di ko wax ko trop à l'époque da xam nga ni da ngay fen man xam naa ne da fen te yow mi xam nga ni yow sa bopp da ngay fen ca à dire tout simplement il est habitué des faits ci manipulation la nekk comme dañu toog ci période pré-campagne il va falloir que ñu rétablir la vérité euh, toutes les manières sont bonnes pour ñu mën a rétablir la vérité. mais est-ce que vous pensez à cette génération nouvelle à cette à ces yi nga xam ne euh, daa am lu ñu war jël ci ñun euh, parce que aussi le débat public dernièrement vraiment c'est c'est très très très parce que tey ki nga xam ne tey moom moo débat bi ñun suñu commentaire dina mën a am benn élévation dina mën a am benn niveau bi mhm. mais fi mu teg débat bi ñun foofu lañ ko mën a fekk si parce ah. que bu ne régime bi fi nekkoon ñoom dañ doon falsifier ay chiffres yi ko jox FMI mhm. dañ doon tromper sénégalais yi croissance bi ñu doon wax du woon dëgg déficit budgétaire bi ñu doon wax du woon dëgg euh, li ñu doon wax dette bi ñu doon wax par rapport ak PIB bi du woon dëgg mhm. dañ doon fenn sénégalais yi moom bu eggee ci niveau boobu je pense que ñun tam bu ñuy commenter ci même